Assalamu alaykum. mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo mbokk yi euh, démb jotuma wax si euh, Abdallah qui a fait franchement un bon match ni ma ko mën a tuddee parce que la ñu ko mën a joué si match bala joué match boobu am na ñoom Barcelone la ñu war a dajal c'est un match tellement intéressant pour waa waa Brest ñi xam ne ñu nekk def exploit à Ligue des Champions maintenant suñu génnee moom soog a dugal premier biom démb et donc c'est à féliciter parce que jotuma ko wax aussi tamit que Sénégalais bu dugalee bi ak fu mu mënta nekk aussi dañu war a génne wax si euh, féliciter que c'est bon signe pour la suite franchement euh, lu Moi, je prestation de haut niveau en Ligue du Sénégal malheureusement à chaque fois il est blessé titulaire a jouer et de dernier match Serif Ndiaye gagné na points aux yeux des Sénégalais aux yeux même de l'entraîneur même si l'air a donc c'est à lui de continuer à travailler et euh, a Cheikh Touré aussi tamit en Ligue de euh, en national plutôt avec Nash Lorraine ancienne équipe de Saloum 6 def doublé c'est des joueurs comme ça yoo xamante ne grand public bi xamuñu leen mais Inch'Allah, comme d'habitude sous cette football TV dinañ ko andi découverte ngeen gën ko xam donc planter un doublé c'est pas c'est du lu ndaw euh, duñ ko ko xeebal et Inch'Allah, allah dinañ def découverte am ngeen gën a xam seeni joueurs. Nicolas Jackson Nicolas Jackson a encore frappé Nicolas Jackson a encore fait un match formidable si seen jàmmaaroo ñom ak l'INSEP bu ñoom Boubakary Soumaré ñu ko jox seen titulaire il te met un but bu xam ne dafa baye défenseur ne fa di tappale di tëbaka dal mais man ni mu teggee bel noonu après mettre sur extérieur là Nicolas Jackson équipe nationale du Sénégal Nicolas Jackson euh, xam Chelsea c'est comme le jour et nuit quoi du sax c'est même pas les mêmes niveaux mais cette direction là man jàpp naa ne am naa si njort bu rafet ko am un jour en équipe nationale du Sénégal parce qu'il est tellement fantastique dans le jeu et même le deuxième but de Enzo Fernandez mon moo mbëkk gardien tapé donc il a fait un match correct 7e but euh, du côté de Premier League, trois passes décisives ay statistiques yu xamante comme ni ma ko waxee jëlal Shevchenko jëlal Crespo jëlal Griezmann euh, jëlal Pato jëlal euh, Morata jëlal des Torres jëlal attaquant Chelsea fa jari yëpp bëri na ñu xamante ne Jackson def jofuñu ko. donc encore une fois Jackson mérite li mu am ni liggéey moko ko man moko ko may et franchement dans le plan du jeu moi limay wax rek nga automatisme bi mu am ak Palmer non bëss buñ ko am bu ko am ak Iliman Ndiaye parce que deux joueurs yu xam ils sont connectés mën nañ sax gëmm di gisante daa par les déplacements de Jackson on sent que Paul Moore xamna fa la kay jox bal bi même Enzo au niveau de milieu terrain donc Jackson loolu war naka mëna am cette connexion là lien bo war naka mëna am euh, donc ak kii di Iliman Ndiaye mi xam techniquement parlant voilà il a les capacités de jouer à une touche de balle normalement accélérer le jeu bi quand il faut et dans le milieu terrain tant Lamine Camara bo xamantene wala un Pamata Sar wala je sais pas moi ben Habib Diarra donc ces joueurs là connexion bi xamantene Jackson am na ak les joueurs de Chelsea on peut travailler ça xam en Coupe d'Afrique on nañu andil ay jolor yu xamante sax sax ñu ko won Jackson encore une fois formidable gars yi lañu gisé ci commentaire wax lañ enfin enfin Ismaël Sarr Dougal na critique lu bax la ci joueur. Ismaël Sarr, méconnaissable en équipe nationale du Sénégal. Le gars, c'est compliqué contre Burkina Faso. Mon dribble ken. Esthétiquement parlant, ben on l'a passé. Iliès défenseur bi dafa jël bal bi c' hyper compliqué au deuxième match là téguñu ko té Sénégalais yëpp d'accord accord ne voilà le match de Ilmandia Ndiaye sax moo donc ñu bari ñu waxoon en club mun na defaat euh, retour am bu fa defee retour ça peut changer et ça a changé dañ tay di contre Aston Villa li mu bëgg espace ñu profondeur que Ismaël Sarr bi ñu gisoon temps yii nekk Watford bu jël profondeur dootu man su dara même si malheureusement à la fin dañoo def match nul mais quand même c'est bon mon frère C'est bon de marquer doomu ndar bi C'est bon de marquer xam nga waa Ndar leen xam si sañce xam leen si service c'est bien boo nga service mën a solu mais boo duñ doon dugal bii comme ni nga ko defee nii ñoom dañuy gën a kontaan dañuy gën a sawar si seen si say mbir et en espérant que lii mu nekk lu baax pour la suite du côté de Premier League parce qu'on a besoin d'un très bon Ismaël Sarr franchement pour mën a di prétendre à chaque fois ñu lay convoqué non seulement et même pour être titulaire concurrence Iliman Ndiaye là parce que Iliman Ndiaye bëgg ko bàyyi poste bi gauche xam nañ ne Sadio attaque xam nañ ne Jackson la Jackson ñoom Serif ak ñoom Boulaye wala keneen mais côté droit Iliman mën na si xeex ak yow bi xam na ne moom il a des qualités pour te piquer sa place là léegi nag pour mu bañ la a def en en club mon frère tu marques des buts comme ce et ça peut être intéressant pour la suite gars yi xam nga yéen ban xalaat ngeen ci am ci commentaire wax leen ma ko. gars yi ma ñëw nag leeral propre démb quoi démb dama ma waxaale pour kaf mais en même temps jàllale sama message ñeneen ñi ma resté professionnel saa yi man ab libu la ma ab libu la ma deewee ab libu la ma ma neexee ma ñëw wax leen wolof bi xamante ne moom ngeen dégg dégg mais nag ay resté professionnel Rodri moo war a resté professionnel Rodri moroomu joueur muy xas moroomu joueur ku xamante ne yow dafa góor li mu def mun munoo football football ba am li mu am munoo daraja bi mu am munoo football football mais gars dañ koy jël affaire de Cristiano affaire de Messi du loolu kii dafa bari wax moo tax Neymar tey wax na que ne kii daa bari wax ñu fa lan la wax tey Vinicius ne Vinicius xool comportement am na moom mel ni moom comportement am daa baax bu fekkoon talent football rek Vinicius nii la jox ballon d'or bu fekkee dëgg la yàlla bëgg moom Vinicius mooy ballon d'or donc Rodri Rodri ku mu ku mu teree yàq ay nelawam Rodri mën na football comme maanaam ñun jom ñu lu ñu quoi gis ñu ne waaye Rodri moo tax football ci àddina mën na football comme yeneen yeneen joueurs yi Cristiano bi ñuy wax ñun saa ñu Cristiano bi mu nekkee Real Madrid déedéet dañu saa nañ ko Ligue ñu xam ne am nañ un jeune da ko bëgg. Sera keroog lañu commencé seetaan Cristiano saa nañ ko si digg Eh, Portugal ane bi ñu organisé kii bi ni ñu koy waxee coupe d'Europe ane ñu ngi doon seetaan Grèce année bi mu ba Cristiano di joy ñu ngi doon seetaan Cristiano Cristiano Ronaldo ñu ko Real Madrid de bi mu ñëwee 2009 noonu de dañ ko seetaan prime bi mu tàngee jër nekk si digg ndëndam saa ñu ko tey mais bon waa affaire affaire de Messi Cristiano dina mel Messi sax ku ko wax loo ko waroon wax damay taxaw fii sa vidéo ne sa waay Messi waroo ko wax li ko war wax nii ko fenn c'est valable même pour Cristiano Ronaldo Rodri mii dafa bari wax defagul carrière Cristiano Ronaldo na respecté Cristiano Ronaldo jox ko cëram li mu war li mu wax war ko wax mais gars yi dañ koy jël comme man Messi la fan li mu wax dëgg la ki li wax mënul nekk dëgg bu ne bu ne bu ne bu ne Cristiano Ronaldo xamal euh, amul talent nangam nag day wax lu ko neex bekkanam bi la topp day te pare aussi mu si Vinicius yow Rodri da nga ko saax balaan door mu commencé bari wax Rodri la moo mu neexoon ñëpp dañ ne Rodri comme Kanté te mais kii Kanté li def Kanté du ko def xalaatu ko sa moroom jeu waroo ko xas surtout que yow kooku dafa goo li mu def amoo talent bi mu am dara ji bi mu am si football amoo ko Cristiano Ronaldo xam nañ ne deux cent ans bu ñuy tudd si football moom nga bëgg nga bañ koy mais jox ko cër bi moom ñu leneen na respecté ay moroomu joueur am ñun Cristiano Ronaldo saan ñu ko Real Madrid de wala dañ ko seetaan soo ay assez 17 ans di ko seetaan en direct lu ñu ma siy nettali mag moo may nettali wala sama nijaay xam mën na leen expliquer Maradona jamonoom Enzo Francescoli jamonoom Copa jamonoom Pelé jamonoom mais Cristiano kenn expliqué ñu jamonoom dañu toog nii nekk ay jeunes di Cristiano ba mu jeex tag ñu xam ne kii mën na li mënul li def nii ba ni mu nekk Real Madrid jël ay ballon d'oram nekk ñu xam Cristiano ba ni mu nekk Al Nassr c'est ça kenn kenn nettalu ñu si moom dara Rodri mii tamit kenn nettalu ñu si moom dara dañ ko xool nii jaxriñ si o juge le saay loolu sax débat mu ne fi naan non Manchester loolu la ñuy wax mais ñii boo waxee rek ñu ne waa Manchester City booy booy yi xamante ne démb lañu commencé naan football naan non waxoo dëgg waaw nii nangam nangam nangam yéen ci waroo leen d'accord si li mu wax man Marseille laa faral jour Marseille bu ñëwoon wax lii ma dal si kawam naka loolu waroo ko wax yow Zidane waxul lii kenn waxul lii quoi Maradona waxul lii keneen ak keneen waxul lii quoi ñooñu ñoo war a wax waxuñu bu moo war a wax waxul ko xamante ne da def daraja si football am platine je sais pas mais Rodri quoi non wax. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen.